la part musicale. Souka Mbaye tey premier jour koor gi Mm-hmm. waaw ak ki nga xam ne rek euh, moom moo di oustaz Tayib Socé. Tayib Socé euh, wax dëgg yàlla président Macky nag xam ngeen ni def na fi loo xam ni buzz la. Mm. Euh, parce que day koo xam ni galanterie tey bi pa la fi wane. jonge jonge voilà ndax koor jot premier jour koor bu ne suba la nga dem marché pour xool lan la pan nuy man dama koy ñaanal donc monsieur le président ma sàll ngaar lam tool arwaar Bourguédé. maa ngi lay fay di rafetlu bu baax lu nga xamante ni bi amoon nga ko muy solo. Mm-hmm. mu dalal bu nga xam ni dalal nga ma ko si plateau bi c'est quelque chose de très important. ah oui di la si gërëm di gërëm encore une fois sénégalais yi di leen masawu si weeru koor wi nga xam ni dugg nañ fi di leen ñaanal kooru jàmm. Mm-hmm. koor goo xam ni day ànd ak dal koor goo xamante ni dina ànd aussi ak lu nu tuddee mu neex. Mm-hmm. di la nuyu encore une fois. bàyyi laa fa di ko nuyu aussi di nuyu ñi nga xam ni ñoom nga bokkal plateau bi yëpp <laughs> vraiment di leen sant di leen gërëm. Mhm. jërëjëf soxna euh, dama lay wax nag yow jërëjëf bi pa da def loo xam ne nit ñi xaaruñu ko woon sax ci yow ndax loolu kenn mosoo xalaat muy dem fi nga xam ne rek moom moo di marché waaye monsieur le président danaa gis nga dawal fi oto amoo buzz dugg nga fi oto yàq sa doom wër wër Dakar gépp nga bëggoon buzz amoo buzz. démb nag ñu gis nga dem marché sol casquette def kii doon wutaat buzz mais ba tey amoo buzz lu ko lu ko fa ak lan lan moo ko waral. bu du toon soxna si bu yow kon xamoo buzz buzz ma indi si plateau bi. <laughs> dëgg yàlla nga indi ma si plateau bi rek mooy wane nii lii mooy buzz. soxna si dama def lu raar. muy lan. muy wàcc suma bopp. kooku ma première dame lañ ko xamee woon. def loo xam ni da nga gis ci biir galanterie yi muy nouvelle facette de Macky Sall. Mhm. loo xamante ne bi ñu bari gisuñu ko woon. parce que galanterie bu nga xam ni galaan naa ko. Mhm. na soxna si toogal ma dugali la. Mhm. dugal la waañ. defal la sa ndogu. parce que dama damay daw léegi rapidement maa taal. Ah <laughs> loolu ñu bari xamuñu ko. naa <laughs> xam nga. ñun tey daal lañ togg Domada lay defar. Domada premier jour dama Domada. waaw xam nga aussi. Domada mais vinaigre bi du bari dama koy wàññi. fariñ bee tax di. <laughs> waaw mais fariñ ñun dañu ko tàmm fariñ ñun nag fariñ cosaan la fataaya koor gi dañuy fataaya rek di dem fataaya ñun dañ ko bëgg pain au boo ñu xoolee sax xam ne dañu ko bëgg du dëgg sëñ bi yaa ngi ree de. dama daa neexlu kii naan fariñ bi <laughs> xamul li ci fariñ bi. voilà wala jën bulet kay. non dama daa bi. bulet dama dem def jënd ay doraat yu baax. ah waaw waaw la ñu wut. na de ba ah, ah, vraiment indi ko pour ñu macaroni la ñuy xëddee noo ko xamee. <laughs> vraiment. macaroni macaroni rek la moom am ah, parce que ñun moom yooyu dañ ko bëgg. dañu bëgg li nga xam ni moom la ñu moom la ñuy wax kii non kii xëdd bi la wax xëdd ñun xëdd kii la ñuy xëddee macaroni la ñuy xëddee ñun jënd nañ ci waa jënd nañ ci kii camion baa dama daa bi kii la camion macaroni ak bulet day jënd jënd ak bu kii bulet jënd nañ camion macaroni pour xëdd bi pour xëdd kii ko xam nga pat bi ñun dafa ñuy daf ñu neex parce que vraiment on aime macaroni bi marem da ci defar yu baax ci macaroni yi ñun la soom bi sax macaron soom bi macaron mos nga ko mos. déedéet oh c'est extraordinaire il faut le essayer. xanaa ki nga koy toggee meew meew nga koy toggee. <laughs> voilà <laughs> c'est extraordinaire. vermicelle kay moo gën ma macaron dañ koy soom. am mais pas ah, macaron du waaw dama koy def ñun ñëwal kër ñëwal pale. ñëwal pale ñëwal pale ñëwal ah, pale. mais mais macaron président boo ko xëddee dina diis de. ak nan yàlla bu baax du gaaw a res. Ah. <laughs> so yow xam nga lu baax a ah. di wax ni moom mi moom lay loolu nekk loo xam ni Sénégal ñëpp a rafet lu mhm. mhm. loolu nga xam ni amal naa ko mu nekk loo xam ni tous les Sénégalais vraiment nee nañ ma président bi yoon moom wax dëgg fa yàlla li nga def moom toj nga fi mhm. loolu nag di lu am solo ma koy may santaat Sénégalais yi parce que bi ma duggee si marché bi si laay soog a xam parce que ci laay xam li jigéen ñi di daj si marché di xam ni marché metti na trop parce que jigéen da nga koy jox dépense defe ne jox nga ko lu bari fekk day dem dolli. Mm-hmm. parce que li ma doon joxe dépense dama yaakaaroon ni bu ma demee dina matal mais bi ma ñëwee. Mm-hmm. bi ma jëndee ba pare desut si la ne lii. jigéen ju war nañ ko sargal daal di koy gërëm. moo tax mu ne ko jaaraama soxna ma Faye dëgg la waaye damay damay damay pour man euh, ku jigéen kan fa dajaloon est-ce que du yéen ñaar da ngeen ko teg dil mm. xaw ma ko de. Mm. am na ñu koy nan dama ko. parce na li ma jaaxal mooy monsieur le président euh, monsieur le président fois xaw ma président. xaw ma ñëw. xaw ma ko li jafe-jafe jafe ah? ma ko. wallaay moog ndaw si laa yem rek mosuma ko te bés keroog laa ko. xaw ma ko xaw ma ko déedéet. fu ma la xamee. yow chaque la nga fekk ko fi yow it après mais Fatick dafa yaatu. ci naka bravo. da nga ma xamewut ci naka. télé ci naka. bàyyi baal la. ah continué baal la. temps jeex na sax mën na. yow foo ma président jeex na. fan ci Fatick. yéen a bokk koñ yéen a xamee ma kay garaawul. continuer waaw. non non du continuer sa salaate nga mën de. ah bay jeex yéen yéen ngeen di def de. président du daf la dóor. alors mën kii wàcc heure bi dem jeex na. mun naa bañ a wàcc. déedéet wàcc na la ñuy bañ mu guddee. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet non du doon du dama daan dañ koy togg dama sa sàpp rek yàlla ba ci ba ci ba ci bi nii tamaate bi ci rek boo dee tamaate la ko ci bi ñun ñu bëgg ñànk ñu bëgg ñànk tam lañ famille bu bëgg ñànk tam yéen kay sa temps jeex na waaw ceeb bu dijib lañ koy koy toggee waaw ceeb bu sew ñu ne ñu def ak ceeb bu sew ceeb bu dijib rek macha allah <laughs> ceeb bu dijib jërëjëf Sall ñun na dijib rek <laughs> euh, mu nekkoon ki nga xam ne rek euh, moom moo di monsieur le président Macky Sall yaakaar naa dégg ngeen li nga xam ne rek moom moo di ay kàddoom ci nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel di nuyu téléspectateur Walfadjri di leen baalu ak di leen baal ak di leen wax naan leen rek euh, neen dugg ci koor ci bismillaahi rahmaani rahim la ko ci alhamdulilah rabbi arab yàlla ubbi yëpp ah, donc ñu bool ñu dajale fi ñu dalal ko nga xam ne rek moom moo di oustaz Sayer oustaz ki xam ne rek moo di Tayib Socé Tayib Socé waaw Tayib mhm. Tayib mi ngi nii toog na Tayib eh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di di leen gërëm mhm. di leen gërëm di leen sant ci weer wi nga xamante ni bii teew nañ ci muy weeru koor saru ramadan weeru koor <laughs> di weer woo xam ni eh, weeru yërmande borom bi subhaanahu wa taala dafa jël weer wi def ko mu nekk weeru yërmande ak njëgal <laughs> kon di wax ni ngeen ci ñaan eh, dina ci nekk loo xam ni lu baax la tey tamit di ci amal ay naafila yu am solo maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam nga eh, yow ci postas eh, <laughs> bii paa nag mm. yàlla say waxtaan nay layam layami nay waxal waxu ajjana ajjana na tarxise waaye waxu safara bàyyi ko jaal na ma waaw parce que jaan ma di ko wax da ngay tiital nit ñi bii paa nag euh, euh, na layam layami rek loolu lay wax. soxna si man waxuma samay wax waxu yàlla lay wax yàlla moo wax li nga xamante ni bii moom la wax ci alxuraanul karim. mooy jënd ma aj sawara. dana leen yóbbu sawara. bu fekkente ni bii teguwu leen ci li nga xamante ni moom la jox siraatal mustaqim yàlla dana leen lakk. ah dana leen lakk. bu dee teguwu leen ci yoon yoonu siraatal mustaqim yàlla lakk leen. wuy ma dama ne man li waxuma loo xamante bi du alxuraan. si àjjana li may wax du samay wax. mais del wax Tayib Socé moomul àjjana sawara. waaye nag bu fekkente ni bi damay wax nga naan man na nooy dee ko raay. waaw bul nam na na dee ko layam layam yàlla du layam layami. yàlla du layam layami. yàlla borom bi subhaanahu wa taala du layam layami. jaxal na ma. Eh. Eh. sawara jaxal na ma. sawara googu bu fekkente ni bi da nga nekk ci weeru koor defoo li nga xam ni moom la la yàlla digal. yàlla dalay lakk. eh ko ay du dugal sa wala. Ah, yàlla na yéex yàlla na yéex. bu dee kenn ni da ngay tappale. ne feebaroo dara dalu la. Mm. nga bëgg taxaw daal di wax ni dama feebar weeru koor wi duma ko wor yàlla borom bi subhaanahu wa taala joxe ndigal. wax leen ngeen topp sang bu tedd bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi na ngeen ko gëm. gëm ko nag bokk nag ci wor wormaal li nga xamante ni moom la borom bi indi. Ah. yàlla def ko jox julli jox ko koor. koor bokk ci li nga xam ni farata la doomu aadama bi war ko respecte lii ngeen def nii seen greffage yi nii xoolal kii ni mu def baax na waaye xoolal lii ngeen def nii sew yi ngeen def di lamsal. damay ñëw foofu comme dina leen lakk. ah lintali ah. woonu ko yow. sew nag. ustaas man dama am benn question <laughs> dama am benn question boo xam dama ñëw ba fii Babacar wax ma ko ma découragé nee na da ngeen mag yow ku euh, weeru koor ku mag yow amoo koor. dafa ma kaa wax daal ma si gis nga lu jëm ji wàllu ay maquillage maquillage bi nga koy def loo ci jublu ngir sarme sarme sarme <laughs> sarme lañ ci jublu ngir sarme kan ngay sarme góor ah, sarme woo jigéen xanaa jigéen du sarme jigéen bi ngay maquillage lan moo tax yàlla dana lakk yi ngeen jël kii di def petite tête xool ko mu naan petite tête yàlla dina leen di def nii di di ka arabajal yàlla dana leen lakk. la woo ma ko tey Sénégal yëpp nee nañ sa waaraate dafa dëgër. ma ne sama waaraate waxuma lu yàlla bu nga nooyal wax ji. li may wax lii yàlla borom bi subhaana wa du layaam layaami. bu fekkente bi dañ ne leen da ngeen a war a muuru. weer koor ngeen muuru. ngeen def gerefaas. kii di aj ji sànni. yàlla eh. dana leen lakk. Eh. yow yow xanaa kon àjjana amul. àjjana am na waaye dangay ngay muur wala nga muur sa bopp. mais yow waa wuy ma yow di nga ëpp. mais yàlla bari na yërmaane oustaz da nga koo fàtte ma ak sa pain. dama wax ni. temps jeex. waaw oustaz l'islam. oustaz oustaz oustaz daane en tant que nitu diine ngay ngay xaste. <laughs> jeex na dama bëggoon a laaj waaw temps bi dafa jeex boo xam a laaj ah. waaye naa ko bàyyi dina fi ñëwaat ñu dugg ci biir koor gi yàlla dana la lakk ah yàlla lakk ba nga bëgg nettali woo ma lakk tay angel tudd day angel yàlla dana la lakk ah jaajëf su a ah, jërëjëf ajaratu ah, ah. mu nekkoon monsieur le président mu nekkoon ki nga xam ne rek moo di oustaz Sayib euh, Socé euh, mu doon mu ni <laughs> ni muy xam nga moom waaraate macha allah di ci nuyu ñëpp di leen jox euh, rendez-vous hmm. lundi incha allah lundi